Cheikh Sidi entre joueurs quand ce genre de choses arrive la responsabilité elle est partagée que ce soit le sélectionneur mais aussi les leaders du groupe donc tey situation bii nii ñu nekk nii tey qu'est-ce qu'il faudrait faire tey pour faire taire cette polémique là ouais. déjà il faudrait que nit yi xam ni que c'est une chose une chose courante dans un club de football ou bien dans une sélection nationale mm-hmm. euh, dans tous les clubs pratiquement au monde am na joueurs yoo xam ne que des joueurs yoo xam ne que ils sont pas amis avec l'entraîneur mais ils ont un objectif commun mooy défendre les couleurs du du club ou bien de leur pays donc parce que benn affaire boo xam ne la que nit yi wane nañu vidéo vidéo boobu génn na nit yi gis nañ ko nit yi jéem dañ koy jéem a amplifier mais soo amee expérience vie de club wala vie sélection nationale c'est quelque chose de banal lu normal la quoi danay nekk si benn club boo xam dina gis ñaari joueurs yoo xam ne que. du ñu waxante ils sont pas amis. mais mais sur le terrain. danay gis ni que sur sur le terrain danay gis ni que danay ne nii ils sont les ce sont les meilleurs amis. parce que ils se battent il une complicité ils se battent pour le club. su match bi jeexee jeex na ku nekk day dem sa côté ils sont pas amis mais c'est une chose pour man. man mi ko dund xam ko xam naa ni que c'est une chose normale. parce que dans une gis ay joueurs ay nit yoo xam ne que ils sont pas d'accord mais malheureusement fii benn vidéo la les gens l'ont amplifié indi ko benn problème ah, malheureusement ah,